Parce que, comme on a l'habitude de dire, modèle de gouvernance et de leadership, ci gouvernance c'est ce loolu la wax loolu la jàngale boo xoolee outil de développement que Seigne Babacar créé c'est mu Daïra Daïra bi je koy wax il avait mis tënk juróomi loxoom si métier bi euh, kër gi suñu diine suñu tariha. mais Daïra c'était c'était des écoles spirituelles Yo xam dañ fa doon jang pour def solidarité moy ki nga xam ne daara ba la jógee muy mu tasee ki nga xam ne économiste la loolu moo doon initiative bu léegi nag daayira dafay créer benn modèle humain économique mooy nit ki valeur humaine yi mu am yëpp te talant am ci moom mu ne nañ ko jël ñu indi ko bu ñu dajee suñu biir rek daayira rek entreprise la parce que soubassement bi c'est la solidarité et leneen li école la leneen li aussi aussi c'est des liens de solidarité loolu tey la ñu jëmmal mooy phase bi nga xam ne ni centenaire yi jóge na parce que bu njëkk daayira c'était pour dem dagana gaganal mag ñi ñu bañ a dugg ci ay idéologie yi dugg ci ay yenn prolongement culturel yi nga xam ni moom la colon bi indi woon bàyyi fi ay fonctionnaire bàyyi fi ay école am bàyyi fi ay sëñ Babacar ci intelligence am mu daw di gagandu leen bi muy sos daayira créé wu ko ak ay ay ay xafisu alxuraan mais ay intellectuel ak ay fonctionnaire léegi finalité bi nag mooy li jur tey sëñ Abdou Al Amin nak en 2000 xawma 2003 c'est l'initier, initié cellule Zawiya Tijania. en 2003 cellule Zawiya Tijania cellule Zawiya c'est le ko créé C'est l'initiative de Seigneur Abdou Al Amin. te les les gens dañuy faté xam nga PSS. bi ñuy créé bi Serigne Cheikh di créé PSS Seigneur Abdou Al Amin secrétaire généraux yi la bokkoon. ñom lepp lo xamni ni dafa doon dagganal tubaab bi baña réussir mission mais d'une manière pédagogique def nañ ko. bi mu laajee parti politique def nañ ko. bi mu laajee dugg ci industriel def nañ ko parce que Serigne Cheikh est le premier industriel parce que momo indi soko Sococim Sénégal donc bo jógee ci loolu serigne Abdou Al Amin il fait partie des premiers agriculteurs bo bolé ñaar ñoo ñu dem ba ci ba mu yag ñu né nañu xaar nañu gagandal ndaw ñu créer ben cellule bo xam laboratoire lay nek ak incubateur ren tombek coow li bari ñu naan tok muy dox. moom la bëggoon ñu ak yow li ko ko gis do xamni tok muy dox. am légui nak xam nga boy xol tok muy dox bobu ñom c'est bien fait sax ñu wax ko. parce que wax bi mooy tax ñu découvrir lan moo taxoon ñu créer daayira parce que xam nga yaa toog muy dox yaa tëdd muy dox xam nga fii sëñ Babacar tëdd mu ngi dox parce que bërki démb la fa am barrière oram xam nga fa xalif général des Tidiane toog fa la ko président bi ñu fal fekk si ñëw fóon loxo ne ko doxal ma parce que état bi si boppam mooy taalibe Cheikh la république ma la démb dama jël entretien ki nga xam ne moom mooy imam Mamadou ji bu Zac di ñuy waxtaan si li nga xam te moom mooy toog muy jox mun ma sëriñ si waxuma toog Sénégal di dox dañuy toog di doxal àdduna. waaw non xam nga ñoom dañu juum toog muy dox ñi ko xalaat ñoom ñoo toogoon muy dox parce que ñi ko initié woon mosoo leen gis fenn fu ñu doon liggéeyee ndax wax muy dox lañ doon def kan moo créé toog muy dox ñoom mais bi mu bàyyee liggéey ba léegi fan lay dundee wax muy dox. Abou Diallo loolu benn émission la. waaw léegi moom laa wax ne la tëdd muy dox nag mooy li am fii. mooy Seydi Hadji Malick bi mu ñëwee Tivaouane dafi ñëwoon rek ñu woo ko ne ko kay jàngal gaay waaye bàyyi na fi infrastructure milliard tey bu xalif général Serigne Babacar Sy Mansour bu liggéeyloo 2000 personnes boo xam ne chef d'œuvre bi ak plan architectural bi rek adduna yëpp ñëw nañ seetaan si ko waaw te pareegul mu nekk ñaata milliards pour valoriser Sénégalais rawatina talibé yi ñoo ciy liggéey ñoo ciy liggéey waaw léegi waa waa waa ñi ñu ñi ñu toog muy dox ñoy organiser ziar ba paré état bi gagné ci en recette des centaines de milliards ci fiscalité ci recette ci lenen bo démé Touba xalif général des mourid université wa légui yeen ñi nga xamné yeena daan tok muy dox di wax muy dox di sos muy dox di naxaté muy dox bu ngeen démé ba ngeen toog état bi ci bopam ne ah ñun dañu tuddu état waaye ñun ay talibé lañ bala ngeen ñi mëna a doxal fo ngeen dem tàggoo ji ñu gërëm bu baax le président ni mu def parce que loolu mooy tradition bi parce que fii réew mi mënoo doxal dara te jaaroo Tivaouane wala. moom wax na ko ba mu demee Touba wax na ko. ci remercier ci courage bi ci humilité bi. yombul parce que xam li ko war def ko la. waaye joxat message moom njaboot yi daan wax ni sëriñ si dañ leen war a exclure ci liggéey bi tey moom le président dafa def acte courage ñu remercier ko ci mais nag lii dafa coïncider ak loolu pour ñu wan leen daayira yi ci seen ruq yi ñu nekk dañ fa nekk di liggéey. dañ fa nekk di taxawal parce que bu ñu fàtte ni grande mosquée de Dakar copération Maroc Sénégal boo demee Fès tey liggéey Seydi Hadji Malick moo tax tourisme Cheikh Ahmad Tidiane mu ngi yokk koom-koomu boo demee Makka. guide yi fa nekk. agence de voyage yi fa nekk Seydi Hadji Malick ci xilaasu sëb la créé ay emploi waaw ndax moom téere buy cré téere buy créé emploi xam la yonanti bi. am na nekk métier ba léegi nit ñi nekk ay guide nekk ay agence de voyage nekk boo demee Makka tey. tey ñu fàttali leen Serigne Moustapha Cissé moo nekkoon ambassadeur u Màkk Cissé Pire Rawane Mbaye ñooñu fu ñu jóge léegi léegi se nga jël après Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ba mu demee Égypte salar salar rafetal loo xam ni moo indi tey Sénégal yëpp di jàng ji foofu ca Caire nga dem Maroc taxawaayu Seydi Hadji Malick ak njabootu si moo indi coopération Maroc gu Sénégal tey waaw léegi ñun tey loolu la ñuy wane nii rek abu Diallo léegi da ñuy mayaat benn entretien ndax xam naa li nu war a waxtaanee bare na maa en tout cas daal foire bi daal pour conclure daal. mais pour conclure c'est c'est de wan ni daayira yi léegi dépassé na parce que moom période bi nga xam ne dafa nekkoon ci période téye ndono mag ñi boobu la sëñ Babacar indi daayira pour bañ mag ñi dem jéggaani li ñu moom phase bi ñu toll nag mooy phase su léegi daayira ay outils de développement la. comme ni ko Ndeye Astou Al une daayira une activité. une daayira une activité parce que Quelle année? cette idéologie mooy cinq ponk yi sa métier ce diine sa tarixa mais li ñuy dem di ay Albertin a dit l'autre a dit pourquoi ñu am complexe ne cinq Babacar moo ne lii modèle humain suñu diine suñu nous loolu rek programme la loolu rek programme la léegi programme boobu lañ jëmmal ni rek pour wan jox tijaan espace bi ñu ñëw wané li def la continuité ak les perspectives mooy après ñu dem vers des des DAC des domaines agriculture euh, euh, yoo xam ni communautaire yoo xam daayira yee koy moom ñu dem vers des industries yoo xam ne daayira yee koy xalaat seen bopp mais li tax sax foire bi gën am solo mooy l'économie dañ kaan extravertir mooy ay nit jàmbur ñooy ñëw créer ay marché jaay dem te tarixa bi dara du leen ci yitteel mais tey bu fekkente ne la nga am ñëw Tiwaawan ziar ba pare jaar fi jaar ci say mbokku njaboot jënd fi ay affaire xool fi ay initiative am fi ay partenaire mu nekkaat ziar ci ziar. dëgg bu ànd ak mbaquus mooy da ngay ziar ba pare jaar fi xool yenn opportunité yi. aussi tamit dimbaliwaale sa tarixa parce que ñi fi nekk ay entreprise lañu ay commerce lañu yoo xam ne boo ci defaatee day delluwaat ci tarixa yi ah, léegi mu des nag ñu def yu mel noonu ay foire sur la santé dinañ def ay foire si si si si si si si les initiatives communautaires dencal ndax am na ñoo xam am na am na ñoo xam te li sëñ Abdou Al Amine doon wax naan ku ku mënta toppaloo da ngay njëkk def et c'est une première dencal yi si des Tiwaawoon nag dafa saxoo mbaax parce que Maodo moo wane ñëpp xam nga mbaaxu Maodo moo indi mu ne balaa nit ñi di sonn pour mucc ma wan leen Seydina Mohamed indi xilaas au lieu ñuy nekk ay terroristes takk bomb ñu mokkal xilaas di ko way nit ñi di miir di daanu di bëgg yonent bi jërëjëf Abou min ngeen ko ci kër di activiste boo xam te ni day waxtaane lépp loo xam te ni kër gi koy doxal Pape Souleye da ngeen di wax rek carte jaayante yaa ngi ñu